xep lan ngay wër ci naaj bu tang bi ni ba jam man dal ay ji naturel la bëgg yu ma sama gan yi ci màggalug serigne bamba gi wa yow xanaa xamul waa akasa jaaxle jeex na tak ak ñi nga xam ñoy wa waa ci lepp lu jëm ci walum ji naturel la seen ji yam rek ci naturel de way dafa 100 bio dal di nañuy ñew ci dëkk bu sel bi di Touba ngir dal di bégal ñi nga xam ne ñooy muritu sëriñ bàmba yi andi leen ay ji yu neex lool la baax lool ci li nga xam ne mooy sunu gi yaram ñamal seen seen jus d'orange nga xool seen jus de mangue moom amatul waaye nag seen jus de xaar da nga koy naan di xam ne lii ak saa rek nga ko mën a amee ca guuba ca cafka ba ca set ak sell ga bu ngeen bëggee bexndeel seen i ay gan ca ay jus yu neex lool daw leen gaaw seeti ñi nga xam ne ñooy waa ak saa bégal muritu Serigne Bamba yi rek moo leen fi andi te lépp nag daal di naturel à 100 pour ku wax màggal wax bernde suñu mbokki loyeen yi ak sambeen yi lekk rek la ñuy def ah bëgg naa lu leen digérer de waaye yow xanaa xamoo ne ñoo ci man daal di nañuy préparer ay xeetu was yu neex lool ba jéggi day wa ba pare nag daal di baax lool ci li nga xam ne mooy digestion gaaw lool ci digérer loolu lekk mu daal di rees ci dum gën a gaawee loolu mooy was classique ak yeneen xeetu was ci ay goût orange ci ay goût menthe ak yeneen goût yu neex lool ataaye déjà préparé ataaye yoo xam ne dañu ko ba noppi nga xam ne doo ca sonn yow daal xel rek daal di naan xam nañu ne fii mooy Touba dëkk bu sell lool daal di fonk lool di nga xam ne mooy café te lu waay gàtt dégg-dégg xam ne café Touba moo ca topp ak saa ci kafe Touba li ci gën a neex mooy ay pag yu ñu waajal ci waajtaayu màggal Touba gi daal di koy préparer ñi nga xam ne ñooy mbokki taalibe yi lépp daal di jëm ci màggal gi am nañu pak Baye Fall lépp lu tang. tout ce qui est chaud c'est 100 litres au total plus 100 tasses def ko nag ci ay thermos di la koy livré yow dal do ci def dara da ngay xel rek daal di naan am nañu pag maam jaara mu boole lépp loo xam ne sedd am nañu pag ji lu akasa Wa akasa dal dal di may jox seen contact ci nu mu gën a 33 868

سفر سفر سفر سفر صلاة لسي في كل سهر وفي سفر عماني على ما هي مع الحبس والسفر كي نك دي لين وي دي نيان ген دي ابونا سي سوني سيت بي دي senevision.com te bu len faté di bëss cloche bi moy tax mu len di man di signaler bepp vidéo bo xamné duggal nañ ko ci site bi ngir ngeen man di top suñu من الله يزلم على من قدير ويا رب البسم صلاة وتسليم من الله ويا بالبزم سلام màggal Touba yan soxna moom Mominatou Kébé moom alaaji Babacar kebe Ndiouga daldi na koy amal ci këram gi nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba mu daldi koy amal ci ni nga xam ne noonu la ko ku tedd ki sëriñ Touba Seexul Xaddim santaane muy taasimahu bi sunnati yaqooduna lil jannati mu dooree ko ci suba gi ak njàngoom alxuraan ci ay daara yu takku ñu daal di fay jot jàng ay limi kaamil yu takku def ko àddiyey ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim ci bëccëg gi moom soxna moominatu kebe daal dinay saafonte ak soppe yi ak wóllëre yi ak kilifa yu takku yoo xam ne jot nañu fa teew moo xam ay jàngkati xasiida ak ay waxtaankat ak mbooloo mu takku ci bisub sëriñ Touba bile soxna moominatu kebe dal di amal ay bernde yu am solo lool te takku li ko dalee ci ganaar ba ci gëléem dara mànkewul ci bis boobile ci kër soxna moominatu kebe ci ndimbal yu am solo yi nga xam ne saa su nekk mi ngi koy def di ko dimbale dëkkandoo yile ak ñi nga xam ne ñooy néew ji doole yi di leen jàppale ci màggaluk Serigne Touba gile ay nag yu takku ak ay gëléem la daal rey di ko seddale ci gox boobile muy jëf joo xam ne soxna Moominatu Kebe yàgg na ko jëf te dàkku ci dara lu dul bëgguk ku tedd ki Serigne Touba jëf ji nga xam ne daal di na koy jëfal dëkkandoo yile daal di na ñiy yëkkati ay kàddu di rafetlu taxawaayu soxna Moominatu Kebe bi mu dikkee ci koñ beeg léegi nii rek lay def chaque koor gi nii tabaski gi nii chaque année daal bu ne salaamaaleykum rek nit ñëppay bëgg sun xale yu tuuti yii dañuy dem ñëw indi xaalis ñu soxna seeni ko jox te ci jàppale nu rek waaw ñun daal ñoo ngi koy ñaanal rek yal na ko yàlla ak Serigne jàppale. li muy def ci bis bii na ko ko yàlla fay. nu dëkk feek moom boobaak léegi lu fi bàyyam di def lépp fi la nu fekk waaye bi mu ñëwee tamit alhamdulilah ne miin mu ngi continuer daal la bàyyam doon def ci lu rafet lu baax noo koy sant di ko ñaanal it nag mu gën a bari doole. tey te di ko ñaanal yàlla lépp lu muy def rek. yalla na yàlla rek tax bu ko defee man ci am dul jeex du xaaj liñ bëgg wax lepp nak mënuñu ko wax ay lii la liñ ci liñ leen ci masal sëriñ Abdou Lahad Diop setup serigne Massamba Diop Sam di katu alxuraanul karim di kenn ci soxna mominatu kebe momit soxna si jot nako ko defal teranga ji nga xamne yag nako ko defal muy jël nagu am solo dal di ko koy jébbal Modou Sall nay leer nek kenn ci soxna si mo yobbu won bobile liggey ginaaw bi it ay kaddu jot na joge ci serigne Abdou Lahad Diop setup Serigne Massamba Diop Sam dal di jëm ci soxna Mominatou Kébé. di rafetlu tamit seen tànk ndax xam ni ki ñuy wax di séré ay cadeau ci mom japp na ni adduna taxu koy def jëm ni Yalla ak Serigne Touba rek ko tax di jëf. Ah, sëñ Massamba Diop da nan wax ni cantu xol Yalla manam bu la sun borom defalé dara mën nga ko sant sa xol mu yëg ko nit nak bu jëfé jëm ci yow. wala mu jëm jëf jëm ci say bokk wala say dëkkandoo nga gën mooy nga sant ko ci saw làmmiñ bu ñëpp déglu li tax nag cant gi gën a ma gën cee mën a euh, dox ca xóot ci nii mooy li muy def te jëmm yàlla tax muy du ko def ñu bokk ko ak moom muy lislaam ak Sëriñ Tuubaa ak néegub yàlla bii ak tout tànk yi nga xamante ni si ñu ngi ci koñ bi te lu ma téeméeri nit wala lu ko ëpp ñu ngi jàng ci biir këram gi ca barab bi ñu fiy jànge bari na ñoo xamante ni si tey jii buñ ko moomoon leneen lañ cey xalaat lu leen di juralum koom waaye moom lim ca am da ko jël jaay ko yàlla waaye jaayu ko adduna jaayu ko am am ah, alali adduna kon loolu ah mooy li tax ma yëkkati sama kàddu yi dama koy wax toujours ni ko maa yow bu la neexee mën nanoo bañ a gis nay dégg noddu gi ak alquran ji ci jakki ji ak alquran ji ci bir keur gi ndax lolu muy dundal pakku Serigne Touba bi nak lolu dong nga taxone mu sanju Serigne Touba nak bi muy ci yoonam bu bax wi ngir niko serigne bi don waxe nan dimbali Serigne Touba ci sun bop moy mucc gi mu nga xamanteni ci mom moom la jublu won ngir eh, eh, ñu mucc ba tax mu son cionam bobu te fekk bobu mom muccoon na ba mop ba nopi liñ ko mëna dimbalé moy lu melni li def taxawal ko ci l'islam mu fakkon bam set wicc ak lu mel ni moom alxuraan jeeg jàkka yeeg yooyu te jigéen la waaye góor mënu ko ci dëkkandoo yi nga xamante ni si tam nag ñoo bokk dëkk ci koñ bi mën naa leen a seerewaalil seen cant ndax dañ njaboot moom loo laal ci moom rek mu yëg tiraangam ji waxtu nekk bu dul màggal gi day def ay tiraanga di ko dugal ci seen biir kër yi ah xam na ni li mu am moom nit ñee ko bokk moo tax mu jël ko bokk kook ñoom kon nag man mënuma lu sant ko na ko yàlla dëgëral yàlla mi nga xam si daal mooy sàmm jaamam yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko ba fuy waajuram àggoon ci Sëriñ Tuubaa ci ndam moo weesu ko waaw ginnaaw bi it de ñenn ci ñoo xam ne ay kilifa lañu jotoon nañu fa teewu ak ay mbokki boppam yëkkati ay kàddu jëmale ko ci moom muy kàdduy cant ak ngërëm yoo xam ne dañ koo ameel soxna Moominatu Kebe. te daa nga bu ne nga def ko fi daaray kaamil yi yow jumaa yi yow jàng yi yow bi si bopp yi nga xamante ni dañuy def te duñ ca mën dara bu nu soo gis la kon nag ndeyjoor lu mu la defal su ko ndeyjoor mën agul a fay bu coow làmmiñ jóg loolu mooy wax amaa bi ni ma tërab bi nga fa alis bëgg nga taalibe yi bëgg sëriñ Sall di ko liggéey ci taalibe yi mboolem mi fi ñëw ñëpp di ko Modou Mbaye Samb waxee kenn ku ne sa teraanga dem na ci moom te loolu nag dañ cee lu ko gën a neex mooy ubbi sa kër éviter leen màggal Tuubaa yow li ñu gis nag wax dëgg yàlla kenn ku ne fa nga ne nga yónnee la nga yor bu ñëwee nga teral te loolu ak baax rek la. sa waajur yi toog soxna Marème Ndiégue Sala bu dil si waatoon tabarkàlla doo pa doo paas yi nii nga ngi leen def ñoom nee nañu dala nga seen xel ngi lay sant dila la gërëm soxna Ndeye Astou Mbodj soxna Adama tabarkàlla ñooñu bu ñëpp gërëmee te ñooñu gërëmuñu gërëm li day des waaye say bokk la njëkk gërëm say rakk la njëkk gërëm say magal la njëkk gërëm say bokk di la tiitaroo min ma wooyee na ma loo su lu baax waxal lu ko soxna moom yi doyul soxna moom yi nag wax ko lu baax tabarkal naan wu dool yi mar la ndax tabarkal la moom suba gu mu xëyee dana sol bis bi ba mu jeex ci ak mbaax ak yiw ak teral taalibi sëñ Tuubaa yi ne bu nee nit baxam baax na non baxam bokk yaa ko wax ne ñoom ñii toog de nee na namunu dara ne yëg rek moo gën a neex ne du xëy suba wala mu gont te déggnu ko ne lépp lu muy dugg dem ñoom dinañ ko xam waaye du dugg leen lu xamul ne mosu leen ko mosu ko mosu leen a jaaxal mukk nee na Medoune Fall léegi ci suba nee soxna moomi nee lamp la boo xam ni macha allah amul contact nee loo am contact la ñuy taal ak fay nee yàlla ko taal ti kenn mënu ko fay kon nag foofu rek lay yem moomi Marème Dieng Fat Cissé Assou Ndiaye soxna wele soxna wele mam alfa yi ma moo ko jur alfa ak faawaat mi jur si jël xaj ma li nga bokk ndey ak bàyyi alfa bakari wele ko jur daraman wele juru ko nga topp ko ba ci rasulullah alfa euh, faawaat bute fay moo ko jur bute fay faatumata lansaar moo ko jur muy al ansaar di xurayshi nga topp ko ba ci rasulullah ma ne ko kon yow surtout Seydina Mouhamed màggal Touba 2021 nii rek la ko soxna Mominatou Kébé moom alxaaji Babacar kebe njuga daal di dundalee diirub bis bi yépp ak guddi màggal gi ci njàngum alxuraan njàngum xasiida salaatu ala nabi amal ay bernde yëkkati ay ndimbal daal di koy jagleel askan wi ak néew ji doole yi daal di dundal guddi gi ba bët set ci këram gi nekkee ci diwaan bu Touba Safar, safar, safar, safar. صلاة لسي في كل سهر وفي سفر عماني على ما هي مع الحبس والسفر kii nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné di senevision.com te bu di bës cloche bi mooy tax mu leen di man di signaler bépp vidéo boo xam